auzu billaahi mina sheytaani rajiim bismillaahi rahmaani rahiim kon ñu ñëw ci sunu binn tey ginnaaw bi ñëwee ci faratay julli mu tolloon ci fukk ak juróom muy quinze tey di ñëw ci sunna yi julli sunna yi toll ci dix-huit fukk ak juróom-ñett sunnay julli mooy yi nga xam boo ci bàyyee lu mat ñaar sujjóot dalay war moom sujjóot moo koy defar bu defar tam moom la boo ko bàyyee te dabaataloo ko julli ga day yàqu sunna yooyu bi ci njëkk mooy liqaam liqaam sunna la saar yu ngay jàng ginnaaw faatiha ba laay ba ngay jàng ginnaaw faatiha ndax ginnaaw faatiha moom du forcément nga teg ci saar bu neex nga teg ci aaya bu neex nga teg ci benn baat ci bokk ci alxuraan nag bokk ci alxuraan kon saara ngay jàngi naa faatiha ba laaya ba ngay jàngi naa faatiha ba aaya ngay jàngi naa faatiha ginnaaw faatiha daal loo ca jàng tam bokk ci alxuraan rek loolu sunna la taxawaayu jàng saar woowa wala laaya yooya wala laaya booba te tey taxawaay boobu sunna la kon jëmmi jàng saar wi ci boppam la waaye taxaw gi nga taxaw di ko jàng tamit la muy ñett bu ko ñeenteel mooy beral ci foo war a berale waa ci barab bu war a berale lu mel ni julli timis ñaar rakaa yu njëkk yi julli gee njëkk yi ak jullik suba beral googu sunna la bi ci topp mooy yàllu ci barab bu yàllu maanaam yàllu foo war a yàlloo mais tisbaar am lépp dañ koy yàllu ak julli takusaan am lépp rakaam yëpp dañ koy yàllu ak julli timis raka bu mujj bi ak julli gee ñaari raka yu mujj yi kon lool tamit sunna la kon biral ci wax foo war birale ak yàllu foo war a yàlloo yëpp sunna la mooy biral gi muy yàllu gi ba tey tamit booy julli kàbbar yi ngay def ci julli gi boo weesoo kàbbar bu njëkk bi mooy allahu akbar bu njëkk yi mooy kàbbar yi dugal ci julli gi yeneen kàbbar yi ci desaat yëpp mooy booy rukkoo booy sikki rukkoo booy sujjóot booy sikki sujjóot allahu ngay wax sunna la bu njëkk bi rek mooy ci farata mooy kaabaru armal bi ba tey taay bu njëkk sunna la taay bu njëkk maanaam ba amee ñaar rakka ba toog taay boobu ngay def tàmbale ci bu njëkk taay boobu sunna la taay bu ñaareel tamit mooy boo jullee ba julli gi mat ba ngay waaj salma taay boobu ngay def mooy taay bu ñaareel bi taay boobu ba tey sunna la ba tey jotaay yi taay yi tamit sunna la bu njëkk sunna la jotaay bi ngay toog di ko defee sunna la mooy toogaay bi bi ñaareel bi la jotaay bi ngay toog di ko def tamit sunna la kon foofu ñeenti sunna ngi mooy taay bu njëkk sunna la ab jotaayam sunna la taayam ñaareel sunna la jotaay bi ngay toog di ko def tamit sunna la ba tey julli ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam xam mujj bi lay amee mooy bo taa bu ñu mujj boo defee ba àgg xam door solo li ñu ci teg ci allahumma salli ala sayyidina muhammad ba àgg ci innaka hamidum majid julli googu tamit mooy julli ci yonte boobu sunna la jëmmi dal dal waxoon farata la dal gi saa xase am la ciy dolli ko waat loolu sunna la luy dolli ko ci dal gi sunna la dal gi rek moo ci farat mooy looy def nga ne tekk ba cër yëpp a dal nga soog a jaalaat ca ba ci des dal googu mooy farataay ba amee leen lu ci dolli ko la ba tey sëlmal timit asalaamaaleykum ji loolu rek moo ciy farata waaye leen lu ci dolli ko at la sëlmal bu njëkk bi sëlmal bi nga biral ko mooy wax ko ci kaw loolu tamit sunna la sëlmal bu njëkk bi ba tey bokk na ci sunna yi bu dee dañ lay jiite nga delloo sëlmal imaam ma imaam bi lay jiite boo sëlmalee sëlmal sa premier sëlmal nga xam ne sa côté ndeyjoor côté droit bi nga koy jëmale dangay sëlmalaat ci sa kanam moo xam ne nga koy jëmale ci imaam loolu moom tuddee sa delloo sëlmal imaam moom moom di jar nga koy wax ci kaw da wax ci suuf te loolu njëkk bi rek ngay wax ci kaw mooy faram mooy sëlmal bi doon farata. wax ji kaw moom sunna la waaye sëlmal bi mooy faral léegi boo noppee da ngay delluwaat sëlmal imaam mooy da ngay sëlmal ci sa kanam jëmale ko ci imaam sëlmal boobu sunna la bu fekkee ni daa am ko nekk sa côté goos koo xam ne fekk na julli gépp wala lu mu néew ne am na ci lu mat rakka commenté nañ koy delloo sëlmal mooy da ngay sëlmal sa côté goos jëmale ko ci kaw jëmale ko foofu waaye moo sën boobu tamit da ngay wax ci suuf bu fekkee ne kon sa côté gauche kenn néewu fa wala ka fa nekk amul ci julligal matub rakka boobaa du jël nga fay sëlmal kon booy julli ñu lay jiit mën am ku nekk sa côté gauche kon day mel da nga sëlmal ñetti sëlmal sëlmal bu njëkk bi nga xamee mooy farata nga xam ne moo lay génne ci julli ji ñu ngi tudd sëlmalu yeeweeku ak sëlmal bi ngay jëmale ci sa kanam mooy nga da wax ci suuf ak sëlmal bi ngay jëmale sa côté goos muy bi ngay delloo ko nekk sa wetu càmmooñ bu fekkee ne am na julli ju mat ab raaka lu muy néew néew bu ba lay jiite bu dee dañ lay jiite te imaam day biral day wax ci kaw kon nga noppi diglu ko noppi googu sunna la buñ lay jiite te ki lay jiite day biral jullit biral la du jara ngay jàng na ngay noppi diglu ko noppi gi mooy sunna bu dee jullit yàlla la moom danañ bëgg ngay jàng ci suuf ngir sam xel bañu dem ci leneen sunna yi bi ci mujj mooy saatir maanaam booy julli ragal dara romb sa kanam da ngay jël di ko teg ci sa kanam loolu lañ tuddee saatir mooy bu dee yow dong yaay julli wala ngay imaam bu dee dañ lay jiite mooy mam mi lay jiite na doy saatir du jël ngay jël du jar ngay jël dara di ko teg sa kanam waaye booy julli yow dong wala ngay jiite te ragal nga dara jaar sa kanam la ngay teg ci sa kanam loo saatir loolu nag du loo jot rek sa def ko dee du loo jot rek mu man mu saatir saatir dañuy sart mu nekk lu laab set te nekk loo xam ne du jax-jaxeem xel maanaam bo nekk lu rafet lu bëpp baa mu ñaaw lu ëpp wax boo xoolee sam xel dootul nekk ci sa julli gi baa mu nekk lu am ay dessin baa yu mel loo nga xamee ne mën naa tax dootoo teewlooti